waaw jërëjëf Ali ah, kon maa ngi jottali message bi nga jox ko Moustapha woo naa keroog bi ma dégloo message am bi nga xam ne daanaka ab sëriñ moo ci doon wax xammee wu ma ko woon bu baax ma jaaxle lool nag ci vraiment ni nga xam ne noonu la waxtaanee keroog ci message bi woo naa ko mais jotuma ko ci numéro bi keroog waaye message bii mu def lii neex na ma moom xam na ne sama waay la kon na bàyyi di dóor ci kaw ak ci àll bi ndax ku mu dóor si njaboot gi ci man lay dal njaboot gi yëpp sama njaboot ñu si déconné ku si déconnéwul kon moom na xaar ba ñu toog ak lu mën a métti Moustapha xaaral ñu toog ni nga ko waxee su yàlla defee mu am ñu def lañ daan def mu jeex mais bàyyi ojo yi te réew mi tam xam nga ne yow ku la ko jox ñaari semaine bu ma fi ne xaw ma lu la fiy des dana ma jaaxal ndax xam naa ne da nga ko def sans dessus sans dessous waaw li ci des itam ñu balwante ak et puis nga calmé wu ba ñu toog incha allah maa ngi lay nuyu di jaar sama xarit Ndeye Guèye di nuyu njaboot gi yëpp vraiment je te demande de te calmer au nom de l'amitié